jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV namoon ngeen ñu namoon nañ leen ñoo leen raw fuuf gëjoon ngeen ñu gis nag waaye ku ne xam ne ni corona bee teye dëkk bi moo tax mais chaque jour yéen a ngi wu foofu di leen wax ne bu leen fàtte di abonné si wasaare làmb di leen bës cloche bi waaw tey nag comme ni ñu leen ko daan defee rek la leen koy defalee tey seet si leen benn xale ndaanaan champion koo xamante ni nii su jógee Parcelles jóg su jógee Golf jóg su jógee Eco jóg su jógee Xippi jóg su jógee Cambérène 2 jóg su jógee euh, golfu jóg ñëpp jóg golfu gayndeeg ñëpp su jógee ñëpp jóg comme nag moom xale la comme ni ko Balla Gaye defee Modou defee ko ah Eumeu Sène defee ko waa Parcelles am ci moom yaakaar bu toll noonu tey moo tax ñu woon seet si leen ko muy Ardo Ardo naa la. waaw salaam siyaar bége bëree rege fi ma jógee soreeres yi mënuñu ma téye siyaar naa saw dap ñëpp daal waaw di kontaan si concept bii nii ñëw seet si ma tey en tant que lutteur waaw bége nañu wér. lu tax ardo la moo tax ardo avant tout ardo nit ñi dañ koo xamoon ci médecin boo xamante ni kuñ dóor ba gaañ la yóbbu la foofu la moo tax nga andi choix tout ardo bi. waaw ardo bi mën naa ne gannaaw bu ma sant yàlla julli si yonent bi ñu ñëpp ñuy seetaan ñuy béggee wasaare bi na tas fépp xam nga dañuy béggewaat ñëpp rek. ardo bi li ko indi mooy sama sama ñaari grand ñoo ma ko tuddee woon ndax man maa ngi murit sax la laa laa joxe woon pour. bëree ko sama première combat man ak euh, waa ñu naan xalifa ñu koy woowee si làmb ji desit waaw dafa daanoon euh, sama benn booy mën nañ ni kooku sax du suñu booy suñu grand la daf ko daanoon daanaat ko di ko daan chaque jour ñooy bëre bu làmb amee ñoom ñaar rek kay bëree si koñ. mbapat la wala. mbapat la ñoom ñaar kay bëri te ñun dañoo amoon cofeel ci moom ndax dañoo nekkoon dafa nekkoon xale bu ndaw doon bëre ci làmb ji ñun ñëpp ñu topp ci ginnaaw nangul ko li ko yàlla may daal léegi. kooku bëgg ko jëlaat ba pat amaat mu bëgg ko jëlaat te daan na ko ba sonn ma ne ko yow doo jël keneen yow xanaa waa ji rek a fi nekk affaire yooyu ci la ne ma yow ñëwal nag nit ñi ma ne ko ah waa léegi coow di jub demal wax ko Pape Malick moo tëggoon làmb ji. moment boobu bëre nga combat Mbapat. non boobu mësuma bëre waxuma xamuma woon sax ndax dinaa bëre wax dëgg fa yàlla ma ne ko léegi ñëwal man ak yow mu ne ma ma ne ko demal wax ko Pape Malik maa koy saaw dab waa Jeune Paradise ñoo ko tëggoon Mbapat boobu Modou Lo ñëwoon na fi comme invité waaw 2007 sama premier combat mbapat ma nekk xale. mais 2007 boobu noo tolloon parce que ñëpp nee nañu Ardo xale la. waaw ñëpp nee nañu Ardo xale la boobu mën naa ne judduwuma sax <laughs> boobu ñu ngi wut suñuy ay xaw pëftan yi ñuy gis si làmb yi rek la ñëw copier. waaw yor suñuy dunk ginaar roof ko suñu bopp. waaw fonk làmb ji ni ñu fonkee woon làmb ji mën nañ ni grand combat bi sax fonkee wu ko woon noonu ndax xaw naa fàtte ñan ñoo nekkoon grand combat bi mais mu mu ngi mel ni tey si man ñu mel ni tey si man ma doon xale bu tuuti bu waroon bëre premier combat mais suñu waa ko ñëpp sama grand bi ma lay wax moo ma tuddee Ardo Omar Ndiaye ak Khadim Amar Omar Ndiaye bu Garga Mbossé ak Khadim Amar ñoo taxaw ñu ne ma si si jour signature bi affaire bi am buzz noonu koñ bi ñëpp génn. ah mbapat daa neexoon. waaw mbapat dafa neexoon wax dëgg fa yàlla ci côté bi léegi ma Khadim euh, Amar ak Omar Ndiaye ne ma yow loo joxe ban tur nga joxe ma ne leen murit ñu ne ma noonu bul joxe murit murit c'est dafa. dafa diis quoi. léegi ma daani xaw a siisu xaw a mer ñu ne ma defal CNG ba si yàgg ñu ne ma non defal ardo mais dañ ne hasard amul quoi parce que man booy xool min ko mi pulla man pël laa affaire dafa fekk tur bi dafa ñibbiwaat si borom rek waaw ardo boo gisee ñun suñu cosaan pël moo toujours kiy jiite soo pula ardo borom nag yeeg mais mooy toujours kiy jiite ki nekk en avant te képp kuy dox si mbiru laam bëgg nga jiite bëgg nga nekk si kanam ma xam ne tur bi dafa delluwaat dafa wuywaat borom rek waaw noonu laa débuté comme ardo bi quoi. nga bëre sa premier komba boobu noonu maanaam da nga jëlal sa mag revanche. combat boobu noo leen def. waaw combat boobu dama ko fonkoon trop trop trop ndax xam nga rek boo nekkee bañkat xamoo defet man si football laa foogoon ni sax la lépp di xewee ndax demoon nañ ba maa ngi saawda ab sama coach ku si mel ni kii père As bu jaraaf dem naa football fa ba am fa licence cadet Eh, kii Poussin laa jugee ba cadet waroon am licence am naa licence sax cadet mais mosuma fa jouer compétition cadet nag mais pare woon naa pour kii ko si année yooyu laa bàyyi nag wax dëgg fa yàlla si laa bàyyi continuer làmb ndax jour boobu dama bëre combat boobu rek ñëpp ñëw affaire bi kii gars yi di ma ko xoolee. ampleur ma xam ne lii tamit sama yëf la war naa see bën a bay sama warta tamit mi ngi woon sama biir xool quoi. Mhm. noonu nga def daal ba ñëw ci làmbul mais bi nga ñëwee ci làmb tamit nekk xale di entraîné man am na sa combat mbapat yu ma seetaan yi nga bëri Nations Unies ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne seetaan naa ko mais pour ñi nga dañuy seetaan te xamuñu est-ce que la Ardo toj na ci mbapat. waaw mbapat ah mën nañ ni toj nañ mbapat parce que lépp lu nit di man boog lu ma am ci làmb defu ma fi dara mais boo gisee ñu may tudd rek grâce à mbapat bi quoi te tamit yàlla mooy may dañ koy sant bu baax ci lim ñu xeebuñu benn yoon wante moom yàlla na xeeb dolli yàlla na xeeb dolli bu baax a baax a baax a baax. parce que bëgg nga cee koo xamante ni fi toll nii moo ngi ci làmb yaa ngi nii nii ah, mën naa ma ah. mën naa parce que mbapat xam nga rek da ngay dem di bëre rek mais ku ñu xam nii si làmb moo bëreek moom mbapat. fàttaliku ma ko noonu de waaw fàttaliku ma ko parce que man mën naa ne bëriwuma ak samay morom quoi bëriwuma ak samay moroom yàlla mooy mooy def daal mooy def man ñi ma bëreel ñëpp ñoo mag ñoo ma jiitu si làmb mooy loolu mais yàlla may na ma si loo xam ne daal bu ma defee rek nag xam ne waaw gan gi li muy def fonk na ko te am na si am na fuñ koy. kañ nga kañ nga kañ kañ nga dugg si ci làmb bëree dóor. bëree dóor ça fait trois ans defe naa trois ak léegi waaw. ñaata combat nga def boobu ak léegi. cinq combat benn défaite. kan moo la daan. Ada Fass ma daan. loolu dinañ ci ñëw def taxaw seetlu ñu gis ne da nga ba yàggul tuuti affaire corona bi am xam nga làmb ci taxaw yéen mbëri ngeen taxaw entraîné tu leen saal ñu tëj ko géej gi ñu aay leen ko nu ngeen dundee loolu. waaw ni ko àdduna bi yëpp dundee laay wax du Sénégal kese ndax corona bi ñu ngi koy dégg fu nekk mais ci loolu ñun am nañ suñuy réalité suñu réalité mooy am na loo xam ne maanaam warut naax saay mooy suñu gëm-gëm suñu gëm-gëm mooy lan dina lislaam te ñi ko xeexal ba mu yegg si fii waruñu mën a fàtte liñ def lépp xam nga dañuy waxaat nguur gi buñ jaaxlee ba jaaxlee war nañ mën a tourner delluwaat foofu quoi mooy mag ñi lañ fi bàyyi muy alxuraanu karim si lañ liggéey ba am li ñu am maam Alaaji Maalik Bukunta Njaasaan maam borom Tuubaa loolu noonu warul naax saay quoi te am na nu ñuy toppee nii maanaam ay topp suñu intellectuel yi baax na trop jàng baax na trop mais arxuraan si la bokk quoi si la bokk parce que. waaw parce que booy xoolee boo gëstoo science moom lu bëri am na si lu mu jëlee si arxuraan. waa je suis mal placé pour wax si carrément mais tamit jot na ñoom tamit ñu joxoñ leen foofu ne leen dem leen ngeen xooli foofu baax na ci quoi pour xam nga rek pour mën a gën a dimbali ndax ñun dañoo am richesse boobu noonu. ñu ñoo mën a jàppale suñu biir ndax ku nekk lu lay aar mi ngi ci sa biir dëkk quoi waaw suñu borom moo ko tëggee noonu nañ delluwaat bu ñu delluwaatee foofu gëm na ni du metti ci ñun ñun bokk. bu ne xam ne ne mbër benn reer doy ko ñu ne ko feu bi am na vingt heures ngeen tëdd mbër war a dem reer këram ñu invité ko fii mu dem fii dem fii vingt heures ngeen tëdd loolu nu mu leen def. waaw nit ku nekk day am kilifa li suñu président wax rek ñu essayé dund ak moom waaw loolu la ñuy fas yéene def rek waaw parce que. Mm, policiers yi suñuy suñuy deret lañ suñuy mag lañ suñuy cousin lañ ñoo ci nekk te ñoom it dañ leen jox ordre na leen defee leen nii ñoom ñu jox ñu ordre nañu nañu toog suñu kër ah kon duñ def luñu def loolu metti na nag mais dañuy préparer lépp rek maanaam waaw ah, lan lañ wax suba du añ du reer mais lu mat a sedd la waaw buñ ko bu ñu programmé ne huit heures la ñuy dugg ñu wut suñuy cereeg meew buñ ko dugalee si biir kër gi lépp a ngi si biir kër gi waaw ah, dara génn fa metti na mettiwul. ñu gis la choix bi nekk saal bi lu tax fii maa ngi nuyuwaayoo ko si Diallo moom mi la yor fii la moo tax choix bi nga ñëw ci saal bi fii. waaw saal bi dañ ne Sénégal Sénégal Sénégal lañ nekk quoi te waxtaan daa baax ci lépp. saal bi sama grand Cheikh Omar mbay ak Babacar Faye ñoo ma fi ñoo ma fi yabal bañ ma fi yabalee nag rëccu ma benn yoon li ma fi ñëwee ndax fekk naa fi ñu teg ma si loxo jàllo ma tegee si loxo jàllo jàllo tamit ibbil ma ay porte soxoreewu ma dara wax dëgg fa yàlla waaw wan di ma wan yoon quoi ne ma da nga bëgg doon professionnel nii ngay dundee daf may jox ba jox ma li ma war a lekk xam nga tegal ma ni nii nga war a dundee nii nga war a def tey lii ngay joog damay damay sentir waaw grand lutteur quoi. waaw ubbil ma porte yëpp di nuyu sama coach yi fi nekk yëpp di ko teg si loxo jàll ku si mel nii Prince Vito xam nga papi waaw chaque jour bu ma ñëwee jàll du ne jàll tey lan la mu ne ma demal gis papi tey non tey moom waaw tey maa lay daj duma la may dara demal gis Vito demal gis Prince xam nga ubbil ma fii ay porte yu bari ñoom ñëpp ku si nekk daf may jox xam-xamam daf may jox xam nga ubbil ma ay opportunité lu ma soxla lu bari bari dañ ma koy jox waaw moo tax ma choisir salle bi sama lépp la fii laa fii laa dooree ba may mës a dugg fii laa njëkkee daal fii laa njëkkee waaw. boo amee combat ni lay waajee ak jamono yi nga xamante ni combat amul dara xewul est que préparation yi dina nekk dina yam. no ñun xam nga ñun amaguñ dara defaguñ dara mm-hmm. te dañoo bëgg a am dara dañoo bëgg a def dara dañoo bëgg a dem ci kaw moo waral toujours comme Diallo li may conseillé dana ma bul toog waaw sàngul mais bul nelaw quoi teel ñëw ndax nga gën a mën a màggaale ndax si kaw nga bëgg a dem te ku bëgg a dem si kaw daa am nooy ngemboo daa am nooy làmboo moo waral nag toujours tooguñu dañuy ñëw tey may damay ñëw sax des fois mu ne ma laal nga si suba demal saal demal yëngal yaram bi affaire yu demee noonu demal si suuf si daf toujours daf may conseil waaw teg ma si yoon bu baax daal waaw mooy loolu. après ça nga ñëw nga dugg sa nga duggul arène sa premier combat. bi nga yëgee ne am nga combat yaa ko dox wala manager bi moo la woo ne la combat taxaw waaw loolu dama ci bëgg waale ku si mel ni sama grand sama lépp Jack Confusion moom moo génn fii nii. mooy génnee fii waaw. borom écho. waaw borom écho moom mooy solal mooy loolu di si jàpp baatin ak zaahir lépp lu mu xam lu mbër bu mag am dina ma ko lijjantil ne ma mbër géréel quoi waaw moom sama premier combat moom moo ko dox ci fàllu Ndiaye. ñu jox ma Bou Siteu bañ may jox Bou Siteu sax xamul woon ni man lay doon bëreel te bëri nañ mbapat waa yàlla defoon na ñu bëri mbapat ma daan ko ñu bëriwaat arène yàlla def ma tamit may ma ndam si kawam mooy nuyu jàkk xale bu am ambition la ku ne gis na li mu def ci koñ bi parcelle bu jéggee parcelle sax ndax ku ne xam na ne ECHO moo koy solal ak yenn équipe yeneen ak équipe mu noonu xale am ambition ñu koy saluer de passage ko nuyu bu baax a baax jàkk ngi lay si bu baax a baax gan bu baax nga waaw nga bëreeg Bou am ci ndam. waaw ma bëreeg Bou Siteu am ci ndam ah, defe naa caatu rëbës am ci ndam trompeur ah, am ci ndam muy ñaata trois bëriwaat ak kii euh, Ada mu daan ma ah, non Adama bëreeg Ada mu daan ma ma bëreeg trompeur daan ko bëreeg kii ki ma mujjee bëre dorma waaw yàlla may ma si ndam daal. koy sante suñu borom bu baax baax di ko ñaan mu xeeb dolli mais man ma benn yoon wax dëgg fa yàlla. sa combat ak Ada nga jël ko. bi nga jël Ada Fass xamoon nga ko. mën naa ne xaw ma ko ndax man na loolu mooy sama cat mooy sama erreur mooy sama défaut du ma suivre làmb lu bari. waaw mais man loolu jaaxal na la moo tax bëri duñu suivre làmb des fois dañ ko gis koo xam day am adversaire nga laaj ko mu ne la xamuma ko te mu nekk ci làmb koo ne ci làmb lu tax loolu. taxale rek xam nga bu sa lépp matul moom bu la dara dul fekk si yaay fekk si. waaw te temps bi dafa gàtt quoi. journée bi nga war si def say séance d'entraînement war si lijjanti yow li nga mën a dundee xam nga te tamit boo lépp si yoon bi la quoi yoon bi ak ñi la yàlla di booleel lépp boo ñëwee doo tal sax télé. wax dëgg fa yàlla dal lu ngay préféré quoi mais ak internet bi képp koy bëri après yow erreur boo munti def si làmb après di nga ko mën a rattrapé xam nga léegi vidéo yi YouTube yi yëpp a ngi fi loolu moo ñuy xaw a jàppale tuuti képp ku ñu jël te xamuñu ko sax dinañ ko jéem xool. ba am si moom nga moom mu daan la après mu def laa naan. waaw ba ma bëreeg moom mu daan man booy xool sax li tax ma jël ko sam première combat. lañ ma ko commencé wax jëlal Ada Fass jëlal yow la yow ak affaire demee noonu xam nga sama staff bañ ma ne noonu man kii laay jël parce que dama ñëw boo bëggee doon dara dangay ngay def lu kenn deful ma ne kii laay jël u ñu wax ma ne kii laay jël boo ma joxul kii bëreewu ma affaire yooyu xam nga rek. folie de la jeunesse ma jël ko yàlla def ma ñàkk ci mais tamit ma koy sante suñu borom ma koy sante suñu borom bu baax parce que am na lu bëri li ma jàngal waaw tamit mooy loolu làmb la daal mu ngi si làmb ji ñu ngi si làmb ji yàlla ko yàlla defal jàmm ndam yàlla na ko jig bañ dem ba si kanam kanam yàlla baax toogaat amaat combat daan amaataat combat daan ñu gis sa combat bi. benn ñaar loxo bi sumé ko entraînement yi moo bëri wala da lay di dal wala lu mu demee noonu parce ñu bëri dañ ne tey Ardo kii euh, Ardo dafa ñëw tey pour ñàkk Ardo tey nekku ci làmb ji ba ci ñu si doon reporté loolu lañ doon wax. Mm-hmm. parce que. loxo bi dama see gaañu woon ku ñu naan kamaay defe naa moom ma si njëkk a gaañ si li ma seetlu ko quoi sama përëd la ma doon jàppale may saluer waa Dóor Dóoraat yëpp ndax lu si bëri contact naa fa lu bëri si combat bi man moom parcelle aw ma ko sens interdit écrit bu ma dugg damay damay damay bége quoi damay fofile waaw mooy lool mu gaañ ma si ba ma si gaañoo après ma dem ñu ne dañ koy fixé te combat maa ngi si contrat bëgguma yàqu journée jàmbur te mooy loolu daal affaire xale. léegi may soox ak moom sax damay dem box sax sàndiku mu deñ mais dara ma gëm ne rek mën naa si am dara mën naa si am dara ba ni yàlla di defee tamit ma am si dara loxo bi moo doon génn mais yàlla suturaal na ma ba ma am si ndam si kaw door maa daal. nga jóge ci loolu bu ak léegi est-ce que ñu ngi lay proposé combat. waaw combat yi gaa ngi wax rek mais xam nga fi mu nekk nii fi réew mi toll nii ak état d'urgence bi dara mënut. Mm. mënut avance quoi dañuy wax rek ku nekk day wax li mu bëgg rek. waaw mais tamit ñun ñu ngi si lu ñu war a nekk waaw ñu nekk suñuy manager as maa koy ziar bu baax di ziar sama grand yi si jàpp ndax xam nga rek li yëpp yombul dañuy débloqué ay moyens yu bëri sama grand xaadim naar xam nga xaadim Amar Amar Ndiaye euh, grand Cheikh maa ngi koy suwetee happy birthday tey la bésu birthday am mu nekk yow xam nga ko bu baax la muy daj ci gox bi laay wax du ma wax écho du ma xippi du ma wax golf gox bi yëpp waaw grand Cheikh Omar boo boolewul dara ki wax moom dafa léppam dafa nëbbatu dafa te dafa suturewu man ba mu jógee si combat bi dama hospitalisé principal moom moo si jàpp wax ak Lat Diop bañ euh, cent 500000 yu manqué mille francs si lañ ma fajee opération billaahi tëdd la l'hôpital. après combat bi. après combat bi nii nii nii billaahi. jógee ci opération moom moom a taxaw moom ak Lat Diop li ma lay wax nii nii suñu waa kër yëguñu ko barki Seexul mi nekk naa hôpital 3 jours suñu waa kër yëguñu ko. moom moo tax mbëri nangoo jël risque da ngay waaj combat blessé bi dem continuer ba làmb ji ba noppi doog a ñëw toog ne damaa feebar lu tax mbëri nangoo jël risque boobu. waaw xam nga boo nekkee xale yow xam nga la ngay gis dama war a bëri dama war a wane sama bopp waaw loolu tamit xëy na moo ñuy dugal ci lu bari. moo ñu dugal si lu bëri ñun du ñu gis lu dul maanaam li ñuy entraîné li ñuy sonn tey ñu wan suñu waa goxkat ni seen mbër mi ñuy dégg fii man lii laa bëgg a doon lii laa bëgg nekk si lii laay dox toujours da ngay bëgg di wane sa bopp amaana mooy tax ñuy jël ay risques yu bari mais itam yàlla mu ngi ñu si suturaal da yàlla ñu si yàlla doolu suturaal di ñu may wér di ñu may kàttan di ñu may ay ndam daal bi may ñëw benn benn waay ne foo jëm ma ko Ardo laa jëli mu ne ma soo demee laajal ma ko lan moo tax moom mu waane lan moo tax mu bëgg affaire de bandi bandi lu suy ñëw làmb ja ak yooyu muy def noonu bu daanee ba noppi. <laughs> waaw loolu dama si shout up euh, di si bëggee di si waaw màggal suñu paaw mbuur soos soose yëpp waaw ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen wax. boobu dafa rafet dafa nice. di leen wax kortanante ñun ñëpp di gërëm siis la lii. yu cinq lal yu nekk Mbour ak benn bi nekk Mbuleem di leen bëggee ñoom ñëpp sama jigéen ñi dañuy sonn si man waa mbuur bu ma waree bëree ñoom laay dafe dañuy jugee ba mbuur ñëw fii di tëgg seen tàng yi xam nga ñuy sonn ci man moom ñoom tamit faaw ma am lu ma leen delloo ndax falaa defee lël Sadio Kounda xam nga falaay bëggee quoi. deret bi la mënuma ko bañ moo koy def sax duma ko tey di leen jégalu bu baax ndax am na lu ñu ma permettre am na lu ñu ma permettre mais dañuy topp suñu xol ba des fois dañuy def sax lu deful mais ñu ngi leen siy jégaluwaat bu baax a baax a baax. gaa yi ne da ngay roy Modou ba mu ëpp. waaw loolu sañta bañ la sañta bañ la ndax am na lu mu def si ñun lu bari tey boo nekkee mbër dañ ne day gudd rey kenn du ne mbër maa ngi ne lu ko paay waxee. mais moom am na lu ñu xool ci moom lu maanaam boo joxee boo demee ba au fond rek nga joxe sa bopp rek boo joxee sa bopp rek mën ngaa am lépp li nga bëgg te gis nañ ko si moom moo tax si tànk yooyu lañ nekk dëgg fa yàlla dañ doon dox fii ba interdis dem di seetaan contact xam nga di ko suivre di doxee sax ni muy doxee di watoo ni muy watoo waaw di waxee sax ni muy waxee kon kooku am nañ ci moom cofeel bu rëy mais dem nañ ba fàtte loolu mais tamit. li nga débuté mënoo ko mënoo ko bañ mënoo ko dindi wax dëgg fa yàlla mënoo ko bañ mënoo ko dindi loolu bu ñu koy jéem a dindi sax du mën nekk parce que dafa nekk su ñun ba pare. da nga mës di def rap parce que dama la gis euh, am na maa ngi nuyu Modou mbay am na benn interview bu mu la jël nga def ci lu neex. waaw grand boobu dañ koy saaw dab tamit di ko bëgg bu wér am cofeel ci moom bu baax a baax wax dëgg fa yàlla Modou Mbaye waaw mais yow moom dama lay ñaanal nga mel ni Bécaye ba ñoo mel ni Modou Mbaye parce que Modou Mbaye da nga koy woodoo ko jot man la sumu waay te dara kilifa la numéro am <laughs> ne la woo ma mais loolu yëpp dañ koy comprendre xat-xataay bi la waaw rap mooy loolu man suñu kër Thiès di leen saaw dab di nuyu sama yaay bu baax a baax démb laa fa jógee mm. wax dëgg fa yàlla démb démb laa fa jógee confinement bi taxoon deux mois gisuma ko man na moon ko lool si fête de mère bi ma dem fa mm. di ko souhaité tamit man fête na dund ba fekkee lépp yàlla may ko jàmm moom ak sama papa yàlla wéral cër yi waaw rap suñu kër cees mën nañ ne ñëppay rap AMC di leen siyaaraat shout out daa def fresh jar naa si semaine boobu quoi ma laay ko di ko dund mooy loolu noonu waaw moo tax. est-ce que mën nga ñu cee ñamal tuuti. loolu force lay doon. eh seen ma fi aduma fe yàpp du dara da nga ñëw di sëriñ te jaaruloo jaara jàngaloo jongaloo xëy bëgg a tari ma arnak seen xiir ñama leen ci yari yar yu tar yu may ñamal mbëri ku jaar ba jàll dootoo ko defati dootoo ko defati dootoo ko defati carte bi carte bandi laa carte bandi laa carte bandi laa tout mooy daw ni nga tout mooy daw hérésie di coow di coow mais du ma tere des ginnaaw damay dem ca kaw a kaw ku ma fa fekk dinaa la ñam ay liif isio booy beng ardolo rang kang kang yaa ma gën a xam benn kàngam ñam xam doomu piyey booy golf mooy represent na gaa yëpp wàcc seen ma yëg seen tégal seen yaam ma gën a naw fii hip hop rap gaal seen di bëre di rap di bëre di njàpp tooy naan bisaab eh na tas na tas tasaare koy tasaare dalay dal nga kaw tas tasaare fii lay xewe It's your boy Bang Rang biir wasaare. waa gis nga noonu lay demee nii lañ koy bëgg di ko defee chaque jour ndax ku ne xam na ne wasaare fii la lépp di xewee di leen wax ne bu leen fàttee di abonné. bës leen cloche bi di nuyu sëñ jiili bu baax a baax maa ngi koy nuyu ak Baye Bass Adama maa ngi lay nuyu baax a baax Fatima ñëpp maa ngi lay nuyu groupe wasaare bi yëpp vraiment ah ñëpp maa ngi lay nuyu bëgguma lim bu ma limee damay juum kàddu yu mujj yi lan la. waaw kàddu yu mujj di sant rek sant seen déplacement bi may ma opportunité ma wax ak samay am di jàmm samay mbokku taalibe di bëgg waat waa golf parcelle xam nga samay jigéen su mel ni May Njaay xam nga. waaw may njaay ku ci mel ni samay jigéen ay ñoom ab sa taal xam nga ay ñoom faatu gujaa bi dañuy sonn ci man ay ñoom ami si xam nga ay ñoom bint waaw muuri ami jàllo mami jàllo mami sàll bu kii kunda bijin kunda ñoom pa bëggu ninki ñëpp rungaas vip bi ñoom bàyyi taala bu ma limee rek juum Ndaama Sarr ñoom loolu fara sama ASC ñëpp golf doole eco xippi waaw sama feef la foofu laa dëkk <laughs> ay ñoom golf eco faja ñëpp daal ñëpp ñëpp ñëpp képp kuy sonn si Ardo maa ngi am na ñoo xam ne sequñu ko gën a xam xamante nañ suñ biir quoi mais bégg naa ñëpp sama grand xaadim naar xaadim Amar képp kuy sonn ci man daal waaw ay ñoom Père Bas xam nga ñëpp ñuy sonn si ardo dafa bëri barke alxuraan mais xam nga rek du ko mate mais yàlla baax na yàlla ñu yàlla defal jàmm ku nekk li nga xam yaa ko bëgg yàlla na suñu borom defal waa di bëggee ñëpp di la bëggee yow bu baax a baax di bëggee Ouzin bu baax a baax ñëpp sama promoteur Fallou Ndiaye maa ngi koy bëggee di la xamal ni sama tawat bi rek moo tax ba léegi gisee wuñ mais dinaa fa ñëw incha allah namm naa la bu baax a baax ak sa staff ñëpp ñëpp dañ may bëggee bu baax a kontaan nañ ci yéen gis nga ni leen koy defee dañuy fekk mbër moo xamante ni mbër la koo xamante ni mbër mu ndaw la ci li ñuy gën a sawar ndax mbër mu ndaw mu ne mooy doon mbër mu mag ëllëg dañuy sawar di ñëw di jàkkoonteek moom di xool li muy dund ak ci li mu nekk parce que loolu da ciy baax di wax yeneen mbër nag ñoo ngi ñëw ibbil na leen suñu porte képp ku ñëw rek wasaare gi ñëw daal seen kaw aadama kontaan naa ci yow maa ngi nuyu coach Diallo bu baax a baax gis nañ ni mi taxawoo xale yi bu baax a baax jaajëf